waaw nikaahul mutaa siwaajul mutaa tabarakallahu jot nañ ci indi waxi boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ci wax ak sart yi nga xam ne yu yàqu lañ koy jàppe wax nañ ci la ca Ashawkaani wax taqiq bu am solo bu mu ca def tey nag sunu bind mi ngi ñëw ci takk jabar ci yéeney wàcc takk jabar ci yéeney wàcc maanaam kii dafa takk jabar waaye moom fas na yéene bu at mi di jeex mu wàcc ko moom loolu la fas yéene waaye waxul ndaw si na ko dama lay takk bu at mi jeexee dama lay wacc moom waxu ko loolu dafa ko yéene ci xolam rek ne kii dama koy takk mais fin deux mille vingt deux dama koy wacc wala maa yi nee nañ boobu sëy wér na boobu sëy wér na al awzaa'i nag moom dafa wuuteeg gaaña ne leen ah lu ko wuutaleeg si contrat bi bi ñu doon tere ci bind bi nu weesu mu ne li ko tere li leen wuutale ñoom ñaar mooy ñaar way dencante yi waxtaane wuñ ko teg ko ci app ki takk moo fas yéene takk ba dat sàngam mu bàyyi a cheikh Rachid Rida dafa ci taaliq bu am solo ca téere ba tudd tafsirul manaar waaw eh, mu wax ne sëy bii nga xam ne mooy ku góor ki moo takk te fasul yéenee yor yor bu yàgg nee na ñooñ démb ak ñooñ tey Eh, wax nañ lu yaatu ci sëyu contrat bee waaye bii biñ ci ñëwee dañu ne in aqada nikaahi yakunu sayihan ida nawa zawju tawqit walam yastarit fi siqati l aqd moom loolu la wax al awsaa'i lële la wax al cheikh rasid rida moo wax li ca tafsir al manaar mu ne bu fekkee waa ji daal lim ci bëgg moom rekk moo ko fas te fas ga it waxu ko ca jàkka ja ne leen dat sàngam lay bàyyi xanaa moo dem yéene boppam rekk ne nañ sëy boobu wér na waaye nag kitmaanuhu iyaahu yuaddu xudaan wa xisha waaw maanaam loolu nag yéen a jëm am ci denc ko bu at mi jeex mu wàcc walla ab boo gën a jege ne nañ nëbb googu mu nëbb nag lim nar loolu ak wor la loolu triche la waaw loolu ak wor la loolu triche la waaw loolu la ci boroom xam-xam wax loolu nag jar na cee seetlu bu baax a baax ci biir te it ab jullit salawaatullahi wasalaamu alayhi nee na du xëcc ab jullit du yu xaadiuuna allah wallazina hmm? waaw moo tax ñaari sëy yooyu wuute woowu moo am wuute boobu moo ci am tabaarkalla mu ñëw ci beneen tomb soxna njinde mooy nikaaju taxliil ziwaaju taxliil laa bëgg a wax ziwaaju taxliil mooy góor gu fase jabaram fasewaat ko waat ko maanaam fase na ko ñu defar mu fasewaat ko ñu defar troisième bi mun ñoo defar ndax atalaaxu fase mu ñu defar marrataani la léegi nag doyalul ci ndaw si fase na ñaari yoon ba ñett bu ñetteel bi mënuñu koo defar eh, te bëgguta ñàkk ndaw si mu woo móor ne ko takk ko móor xujja takk ko ndax su waccee mu jël hmm? Euh, boroom xam-xam yi bu ñëwee ci fase mi soxna njinde dañ ko tëral ay tomb bokk na ca tomb ya at tëb li kii def wa haza nawu min aziwaaji kabira min kabaar al ifm wal faahish muur ko mii li muy def nii bàkkaar la ci bàkkaar yu mag yi bakkaar la ci bakkaar yi ma ngi te mooy takk ndaw si su wàccee jëkkër jii ko doon fase ka fasewaat te doyalut mu jël waaw penc mi fi ne loolu la ñuy kafe wacc naa ko wacc naa la wacc ma may ma sama baat suur naa la rek te mer yi ñuy merkat régler mer mi moo gën a yomb régler sëy bi te wolof nee na koo munta muñ da nga koy muñal koo munta muñ da nga koy muñal kon kii lim def morux dem takk jabar waa ji wàcc ko ndax mu jël ulamaa yi ne nañ kabira min kabair al wal faaish xaramahu llah wa laana faaila yàlla rëbb ko wala yàlla xaraamal na ko ngi jële ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahu almuhallil la rawahu ahmad bi sanadin xasan nee na yàlla rëbb na koy baara yëgoo ak kiñ koy defal ki koy def ak kiñ koy defal baara yëgoo ki ñ koy defal yàlla neen koy du ko yërëm ki koy defit du ko yërëm laana allahu almuxallalu wal muxallilu la almuxallilu wal muxallalu la yàlla nee na rëbb na ki ñuy defal baare yëgoo rëbb na kii def baare yëgoo waaw mu ngoog mooy takk pour mu dagan ku njëkk yàlla rëbb na koy def loolu góor gi ñu koy defal rëbb na ko góor gi koy def rëbb na ko moo xam dañ koo neexal moo xam neexaluñu ko waaye yëgoon nañ ca ñoom ñaar loolu ulama yi wala loolu sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla rëbb na koy def loolu hadis boobu abu hurayrata radiallahu anhu moo ko nettali abdullah mas'udin daal ne laana rasulullahi al muhallil wal muhallalu la moom tam loolu la wax abdullahi ibnu masud mu ne yonent ba moom it rëbb koy baare yëgoo ak ki ñuy defal baare yëgoo waaw noonu la ko Sénégal yi tudde baara yëgoo ko baara yëgoo waaw mu ngoog tirmisi yi xadis bi xasanun saxiix waaw tirmisi wax ni ci loolu xadis boobu jëlee nañ ko ci alayhi salaatu wasalaam min xayri wajhin ci anam yu bari ndax déggub xadis ci anam yu bari day tegtale wér ga wala dëgër ga waaw day tegtale wér ga wala dëgër ga eh, ahlul ilmi ci ci sahaaba yonent ba alayhi salaatu ñoom tam foofu yonent bi taxaw ci addis bi foofu lañ taxaw ñoom it Abdullah ibnu Omar ibnu Xataab foofa la ca taxaw Usmaan ibnu Affaan foofu la ca taxaw Abdullah ibnu Omar foofu la ca taxaw waaw Omar ibnu Xataab laa bëgg wax foofu la ca taxaw xawlul fuqaha min attaabiina ñoom tam ñoom ñëpp loolu la ñuy wax li yonent bi wax rek la wax fa mu taxaw lañ taxaw ne yàlla bu yàlla yërëm góor guy baara yëgoo yàlla bu yàlla yërëm góor gi ñuy defal baara yëgoo waaw tabarkal euh, ñaareelu tegtal bi ci at tey baara yëgoo uqbat ibnu aamir moo ne yonente ba alaa uxbirukum bi taysil musaa mustaar qaalu bala ya rasulallah qaala huwa almuxallilu laana allahu almuxallilu walmuxallilu la alayhi salaatu salaam dafa ne ci hadiisu uqbat ibnu amir mu ne ndax bëgg ngeen ma xam leen ma xamal leen euh, bëy wu ñu able wala bëy wu ñu àbb ñu ne ko axakay bëgg nañ nga xam nga xamal ñu ko mu ne mooy góor guy def baada yëgoo daal yàlla bu yàlla yërëm góor gi koy def yàlla bu yàlla yërëm kim koy defal waaw loolu léeg-léeg jigéen mën na cee ñàkk xam dara ndekke dañ koy baare yëgoo léeg-léeg mu mu lay waar lool te moom tam warta nekk ci diggante bi ñu koy jongale di ko def yoo xam ne nii lay mel parce que jigéen léeg leeg ñu bàyyi xel bu baax a baax ci ni ko loxo yi di def ak ni fi ko lislaam teg waaw ñi nga xam ne dañoo jàng liiral orientaliste yi léeg-léeg seen camp yi tax lu ñu nekk nekk jullit yàq lislaam lu mel ni mu xeme waaw boo xëyee dem ci jàkk ja waaw yàq lislaam lu mel ni mu xeme boo xëyee dem ci jàkk ja bu jumaa jotee nga dem bu ziyaar jotee nga dem tabaski ak korite nga dem ak woor waaye léeg nga yàq lislaam lu mel ni mu xeme waaw ndax boo waxee ne lislaam moo gannaawal jigéen déggoo li xew déggoo li xew waaw fa mu ko jëlee moom lislaam ca def ko marsandiis di jaay ak di ko donn comme alal fafa la ko lislaam jëlee waaye ñi ko bëgg a dellawaat foofa nag lu ne lañ koy wax moom jigéen moom yiñ koy wan di ko ko xëllantoo ci wàllu politique ak ñoom seen yooyu yooyu dara def ko ci jigut li ko jig mooy dëggal njool màkk déggal ngeen ji mbindéef déggal alxuraanul karim fam ne leen yem leen fa ñu yem fa fam ne leen yéena ko moom ñu jël ko lam ne teg leen ci suuf moomu leen ko ñu teg ko ci suuf moo tax baara yëgoo yéeg ñoom seen yooyu dëgg yàllam góor ñi koy def yonent bi ne leen yàlla bu leen yàlla yërëm yéen a ngeen baal ma ci baat bi yéen bon <laughs> waaw loolu la leen wax yéen a bon ndeysaan kon góor ñi def loolu nañ ko bàyyi waaw baara yëgoo waaye itam nag léeg-léeg nga génn rek wax lislaam lu mel ni xeme loolu war naa xewi ci pénc mi war naa fee xewi kat war na fee xewi waaw bu ko defee bu coow li kii rek ñu ne nee na baalu na jégalu na bu subaa mu dellusiwaat waaw lu xew hmm? mu ngoog hadis boobu daal alayhi salaatu salaam mu ne ndax bëgg ngeen ma xamal leen euh, bëy wu ñu àbb waaw ne ko waaw bëgg nañ ko xam kay mu ne mooy kii def baare yëgoo daal ne yàlla bu yàlla yërëm ki koy def yàlla bu yàlla yërëm kiñ koy defal ñeental ba ci àttey yooyu ñu teg ci baara yëgoo abdullahi ibnu abbas moo ne suila an il muxallil qaal laa ilaa nikaa raxba mu ne dañoo laajoon alayhi salaatu salaam euh, baara yëgoo mu ne takk daal mooy ki xem ki nopp xemmem bëgg a takk te am njaxas bañ caa am foye téere bu yàlla bi bañ caa am hmm? ba baa ngeen di joxanteeg ay rawaw abu isxaq al uh, al jawzani su fekkee nu leen koy waxee oustaz Cheikh Tandia kon takk daal mooy ki bëgg nga xam ne moom li muy takk ni daf ko bëgg fas ko yéenee yor fas ko yéenee yiir dëkkal ko dëkkoo ko lu judd ginnaaw ga nag ñu xam ne daal judd ginnaaw waaye bi ngay takk nga fas fas ci sa xol bi loolu ndax yi ngay nax ku jigéen ki ak triche yi ciy nekk mën naa tax sunu borom gàll la loo xam ne danga ko réccu ndax hadis baa ngay wax ne ku bëgg a tedd teral leen ñoom jigéen ñi waaye ku bëgg a torox toroxal leen waaw ku bëgg a tedd teral leen ku bëgg a torox toroxal leen <laughs> waaw danaa daan wax ca sunu waxtaan yële amoon ca kaw lax ca ñoom awa caw yàlla na ko yàlla yokku wér waaw ñi nga xam ne bu ñu joxee seen jabar cinq mille pour gaz sax bind ko mu delloo si weccet ñu bind ko foo fekk ñooñu duñ bari xaalis <laughs> waaw waaw bind rek waaw cinq mille bu jëndee gaz liñ ko ciy delloo rek fës nga fës ko yéenee delloo ci sa compte kenn mësul gis loolu Omar ibnu Xataab radiyallaahu anhu daana wax ne hmm, bu ñu ma indilee kuy baare yëgoo ak kiñ koy defal ñoom ñaar ñépp lay saddi xeer ba ñu faatu Omar a ko daan wax buñ mu indilee kuy baare yëgoo indil ma kiñ koy defal ñoom ñaar ñépp lay taxawal ci pénc ma sadd leen ay xeer ba ñu faatu loolu la Omar ibn Khattab wax am na sañ-sañ nag am na ci garanti ndax salawaatullahi wa salaamu alayhi moo leen yaroon ñoom ñeent ba ne lu ñu def maa def lu ñu wax maa ko wax ñoom ñeent ñooñu Abubakar Siddiq Omar ibn Xataab Ali ibn Abi Talib Usmaan ibn Affaan ñoom ñeent ñooñu waaw mu ngoog moo tax ñu tuddee leen alxulafaahu arrachidun radiallahu taala ajmain waaw loolu la ce wax moom Omar ibnu Xataab mu ne buñ ko indilee koy def euh, baara yëgoo ak kiñ koy defal mu taxawal leen ci pénc ma sadd leen ay xeer ba ñu faatu waaw cët tët ñu ne ko ñu ne waaw Abdoulaye ibnu Omar li sa baay wax nag Abdoulaye ibnu Omar yow li sa baay wax na fu mu tege fa qaala kilaahuma zanin mu ne ñaar ñëpp a ngi njaaloo waaw ñoom ñaar ñëpp ñu ngi njaaloo loolu la ci Abdullah ibn Umar wax kero bañ ko laajee waxi baayam jooju mhm. ibnul Munzir nettil na ko ibnu abi Shayba nettil na ko Abdurazaq nettil na ko juróom benn tegtal bi ci euh, tere gi ñu tere baara yëgoo hmm? jenn waaye daara daa laajoon Abdullah ibnu Umar maa taqulu fi imraatin tazawwajtuha li uxallilaha li zawjiha walam yamur walam yaalam fa qaala lahu ibnu laa illaa nikaha raqba waaw in ajabat amsaktaha wa in karihtaha faraktaha waa ji def na Abdullah ibn Umar bu fekkoon tey dama gis ku wàcc jabaram benn yoon wàcc ko ñaar yoon ñetteel ba mënatu ko takk li fekk góor takku ko bocc ñu ne waaw mu ne mu ne man ma dem takk ko te waxuma jëkkëram dara waxuma ndaw si dara man maa ko takk rek pour bëgg jëkkëram jotaat ci om abla nar na ko tuug waaw tuug waaw takk daal moom ki koy def na bëgg takk ki koy def na bëgg waaye bu mu bëggal kenn ay intérêt ca takk gaak yu deme ni kii di takk di wàcc kee di jëlaat mu ne su fekkee dugg na ca sëy ba gis ca lu ko yéem mu téye bu fekkee dugg na ca sëy ba gis ca lu ko yéemut mu wàcc waaw waaye yéene yi takk ko su ma waccee jëkkër ja jëlaat mu ne ba mu ko ca fekk ne loolu kat ca jamonoy salawaatullahi salaamu alayhi eh, jàppiwuñ ko woon sëy jàppiwuñ ko woon sëy ay nekkaale lañ ko jàppe woon waaw waxaale laa yaza laa yazaalaani zaaniyayni wa in makatha ishrina sana waaw ida alima annahu yuridu an yuxallilaha nee na ñoom ñaar ñuy sëy sëy bu mel nii waaw ñu ngi ci mooy doonte dañ ca am ñaar fukki at bu fekkee ne la ko taxoon dugg ca sëy ba mooy daganalal ko jëkkëram ji mbokk yi wax yi ñu wax ci sëy bii ci neen gu ñu neenal sëy bi dalay wan ne takk gi loolu du mën a wér waaw eh, ndax bu yonent bi xasee àddu ci rëbb loolu duutu dagan mukk ci sharia waaw lépp lu yonent bi wax ci addis ne yàlla bu yàlla yërëm kuy def nangam loola ku ko def yaa ngay def loo xam ne dëgganul moom daal nit ki takk wàcc wàcc na waccaat waccaat ñaari wàcc yi daal sunu borom ne moom xam na ko mën na laa may nga juboo ñetteel bi nag bàyyi ko muuti jëkkër nga dem wuti jabar bu demoon ba tas ca ka ko doon takk nag bu la neexee nga jël ngeen tàmbaliwaat moom it boo ko neexee mu ñëw ngeen tàmbaliwaat mbokk yi yàlla na jàmm yàlla na kiin ak seen njaboot beneen bind ngu noonu ci kër gi nekkoon ci baar yëgoo ak nekkoon ci eh, takk jabar te fas yéenee wàcc balaa yàgg sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen kayit bëgg la filim fàncal xibaar tubaab filim fàncal na ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu